asalaamaaleykum mbokk yi Sénégal ñu ngi leen di nuyu ci seen émission démb seen émission démb nag tey danoo am mbégte lool dem ci réew mu rëy réew boo xam ne dëgg-dëgg Sénégal gépp xam nañ ni lu baree bari ci réew mi foofu la xewe mu di Fuuta Fuuta gi nag xam ngeen ni wàll yuy bari nañ fi waaye tey nag dañu dem ci dëkk bu rëy rëy bu ñuy wax Daara Halaybe Daara Halaybe gi nag Eh, mag ñu baax ñoo fi dëkkoon yaakaar naa ne bu ñu dégloo waxtaan wi dinañ xam ne fii mat naa xamale ak waa réew mi.

bëgg na ci lool laaj bi nga xam ne soxla na ko ko laaj te soxla na ko tontu te sopp na tontu bi mu koy tontu lu tax danga ko laaj ci dundu nitu yàlla góor yàlla bi nga xam ne yenkeewal yàlla yenkeewal na ko ci bépp xam-xam ci bépp nite ci bépp lislaam ci bépp jullite kon nag waxee ci dund kooke mooy wax lislaam mooy wax imaan mooy wax ihsaan seydi alhaji Mouhamadou Moussa mu ne seydi alhaji Mouhamadou Moussa moomu ridwanullahi taala alayhi ajmain ngir na ko yàlla saxal ci moom ko jaamu yàlla ñëpp ko jiyaaɗo allah e jiyaaɓe allah sénégal ko allah e jiyaaɓe allah afrique presque sénégal naaɓe fof enen nganndi mo presque afrique naaɓe fof enen nganndi mo ah. moƴƴere makko diine makko ibada makko sunniyankagal makko mm. e gilli makko e mu ne ki ngeen ko laaj jaamu yàlla la bi nga xam ne jaamu yàlla sénégal la jaamu yàlla bi nga xam ne jaamu yàlla afrique la jaamu yàlla bi nga yàlla bi nga xam ne dafa nekk jaamu yàlla lislaam lépp mu ne alaji Mouhamed Moussa ki ngeen ko laaj adduna bi yëpp xam na ko ni nga koy xamee ci lislaamam bu set ci ciriñam bu rafet ci doxaliinam ci diina bi bu gën rafet waaye ñëpp tamit gën ko ràññee ci sopp Mawlana Cheikh Omarul Fuutiyu radiyallahu taala anhu koy euh, koye tarikh alhaji oumar o jeeya sabu kanko jibina koye fergo o jibina ko ñooro toon ɓe jibina e eh, caggal moom alhaji mouhamadou moussa taarixam dafa daal tabbi ci biir taarixu cheikh oumar wala boo waxee taarixu Cheikh Omar rek waxaale nga ci Thierno Mouhamed Moussa lu tax moom doomi Fergo la maanaam doomi bi nga xam dafa juddoo Nioro Nioro la juddoo bi nga xam ne Nioro ci boppam eh, am na problème bi nii di tuxu Nioro laa di Diourbé ci Mali bi ñu ñëw ci yoon bi la juddoo te juddoo xam ci yoon bi sax am na kiimtaan bi ñu koy indee am na kiimtaan yu bari ci xew allo am na kiimtaan yu bari yu ci xew ndax tamit dañu sonn mu ju mu mu am ñaari at mutul sax ñaari at mu mu nekk xale bu tuuti mu juddoo ànd ak baayam ak yaayam ak mbokk yu bari bi ñuy ñëw ci yoon bi yaay ji sonn ñëpp sonn ñu wàcce ko ñu bàyyi ko ñu dénk benn garab rek ñu bàyyi ko foofu dem seen yoon dem ci bi ñu war a fanaan fi ñu war a fanaane am kuy indi xale bi fekk leen fi ñu war a fanaane bi ñu fanaane ci ëllëg sax ñu xëyaat tamit yóbbu ŋàbb ko ànd ak moom ba ñu sonn ñu sànniwaat ko ñu sànniwaat bu ñu bu ñu war a fanaan ci ñett ñaareelu fan bi am ki ko jël indi ko ba toll fi ñu fanaan jox leen ko ñetteel bi nag kooku ne hee eh, bu ngeen buggee mucc bu ngeen buggee am barke bu ngeen muggee àgg bu ngeen àgg fi ngeen jëm na ngeen bàyyi xel ci xale bi ku so ku yore ba sonn jox moromam yore ba sonn jox ba yorom ba sonn waaye na ngeen bàyyi xel ci xale bi bii mooy seeni mucc kii xale bii mooy seen mucc ɗum ko huude seeɗa ko haali ko ne lii ma wax sax dafa nekk ci karama Mouhamed Moussa lu tuuti moo ci gën a néew buñ ciy wax lii moo ci gën a néew gila o arti e leydi o ummi ko woni ga ko omo janga ha o gasni jangude ha o waɗi galle o meeɗa serde e cheikh oumar nde o yiiɗi yiide cheikh oumar fof so naatti suudu makko o yiyat cheikh oumar no yiiɗi kala ne o ne haaju dari yeeso makko so yi o yiyat cheikh oumar o ɗum haaju o gasa kala mo o duwanto so duwima ɗum ha o gasni o juuɗe annabi sallllahu alayhi wa sallam o wiya e barke cheikh oumar yallah faatu ci yoon bi mu àgg di depuis li muy jàng bi mu nekk xale di jàng alquran bay jàng sharia ba am kër ba bi mu jógee nii amul benn seconde bi mu teqale ko Cheikh Umarul Fuuti radiyallahu taala anhu jamono bu mu soxlee gis Cheikh Umar bu wéetee rek day gisal Cheikh Umar wax ko itam yëpp Cheikh Umar tamit tontu ko ci itam yëpp ñaanal ko yàlla te tamit gin ko dëgëral ci li mu nekk kon nag moo tax ñu ne am na cofeel ci Cheikh Umar jagle la bi nga xam ne yàlla rek moo ko jagle ci Cheikh Umar Cheikh Umar tamit tontu ko ci cofeel cofeel boobu mu ne Cheikh Omarul Fuutiyu radiyallahu taala anhu nekk na nit ki nga xam ne léppam ba mu jeex yëpp yonent bi sallallahu alayhi wa sallam doxalinam jëfam mbindam xam-xamam yëppam yonent bi sallallahu alayhi wa sallam bi mu àggee na ci fi nga xam ne war na gàddu dara amul lenn lu mu gàddu lu dul islaam gi kaddu yàlla gi ni mu tasaaroo ni mu feetee kaw ni mu ni ni mu muccee loolu rek mooy yittam Cheikh Oumar yëpp noonu la mel léppam nag tamit noonu la mel cofeel googee àggana ba mu wax ne moom Cheikh Oumarul Foutiyu radiallahu taala anhu man mii Oumar Foutiyu wóor na ma aljanna moom kii ci dugg foofu la ma ci bunt bi la nga may fekk loolu wóor na ma te tamit dara mayuma ko lu dul cofeel Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam moo tax moom Cheikh Oumar Fouti radiallahu taala anhu doomam ñëpp góor yi yëpp macha allah ñëpp yonent bi la tudde amul benn doom bi mu tuddul yonent bi bu dul ki mu tuddee baayam ñëpp yonent bi la leen tudde sallallahu alayhi wa sallam cofeel googee nag moo tuur ci alxaaji Mamadou Moussa bi nga xam ne moom ngeen di laajte dundam ak mbiram moom tamit yàlla may ko mu sopp Cheikh Omar Fouti radiallahu taala anhu cofeel bi nga xam ne tolluwul ci cofeel bi Cheikh Omar sopp yonent bi sallallahu alayhi waaye topp ko moo tax moom tamit doomam yëpp doomi Cheikh Omar la leen yëpp doomi Cheikh Omar la leen tudde mu ne moom alxaaji Mouhamed Moussa radiallahu taala anhu bi mu maree cofeel xam nga cofeel bu màggee day maraloo nit bi mu maree ci Cheikh Oumar te yàlla xamal ko lan mooy Cheikh Oumar am na Cheikh Oumar bi mu doon gis di pingoonam ba mu màgg waaye xam nga nit yàlla koo koo gis ay martaba martaba la mu ne léegi nag sopp na xam beneen Cheikh Oumar benn jëmm la waaye beneen nit la ki nga xam ne ci mu dina wékku ci moom dina yaakaar ci moom ba xam ne ku àggale ko Cheikh Omar bi mu doon gis àggale ko yonent bi sallallahu alayhi wa sallam léegi mu topp kii Cheikh Omar Fuuti radiallahu taala anhu njabootam yi di seet rek moom Alaaji Mamadou Moussa mu ne nag moom ca Ramadaan nee ne daf ko nirule ak Alpha Xaasmi yu Alpha Xaasmi bi mu yàlla def mu nëppee ci mbirum geer yi ba jeex mu ngi wut ku koy àggale ci yàlla ki koy mottali lii ñaari waaye waajuram yi defoon ko moom ci moom muy jël wetam nag dem ci àll bi xis bu gudd moo fa nekk waaye yëpp xaju fi léegi nag muy dem muy dem muy dem ba mu àgg madinatul munawar sala madinatul munawar madinatul rasul sallallahu alayhi wa sallam ba mu àggee ci madinatul rasul mu ne ah mu daal di teg yat bi mu ne kon nag man li ma doon wut fii la yem booy dem ba àgg ci yonent bi sala sallam jeexal na mu ne moom tamit alhaji mahamadou moussa bi muy dem di wut cheikh oumar boobu mu seet ko seet ko làmb ko fu ne bi mu demee ba daje ci cheikh saidu nuur radiallahu taala anhuma mu ne ah man gis naa cheikh oumar piir bi sax far nag léegi nag man tamit li ma doon wóor gis naa ko boo doon wóor mbir ba gis ko defe naa ne da de foofu ngay yem moom daal mu daal di yemlee foofu moom tamit li mu doon wóor mu jàpp Cheikh Seydou Nour mu jàppe ko ni mu jàppee woon Cheikh Omar te Cheikh Seydou Nour tamit feeñoo ko ci feeñuwaay bi nga xam ne Cheikh Omar mu ngi doon feeñoo ci loolu li ko doon Cheikh Omar yokk Thierno Seydou Nour di ko ko yokk li ko doon Cheikh Omar di may Thierno Seydou Nour ko may li mu doon seenu ci Cheikh Omar mu di ko gis ci Cheikh Thierno Seydou Nour jaaxaran gis ji nga xam ne bokkul ak ji Cheikh bii mu gis léegi bokkul ak gis ci xalwa bokkul ci gis ci ba ma wéet bokkul ci gis ci gént bokkul ci gis ci jeneer dafa nekk gis jaxran mu jë jëmmu Cheikh Seydou Nour bi mu def ko Cheikh Omar te mu nekkal ko Cheikh Omar te mu nekk Cheikh Omar pur tamit su feelaam ci yiw moom sa alhaj Mamadou Moussa cofeelam ci lislaam cofeelam ci yàlla cofeelam ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam cofeelam ci cheikh na tijaani radiallahu taala anhu cofeelam ci cheikh omarul fuuti radiallahu taala anhu cofeelam ci cerno saydu nuur radiallahu taala anhu nekk na cofeel bi nga xam ne amul fu mu yem amul fu mu yem nekk dem na ba mu far boppam ci ñoom mu ne nag moom ci ñeent yi ma wax yi kooku ci neexee rek nga nag nga jàpp ko nit kii bu ñëwee mu ne gis gént na yonent bi di la wax nangam wala di la jox nangam boo déggoo boo dégguwul yoonam ko ci daf lay jox rek gént naa Cheikh na Tijaani muy gis ak yow wala muy wax dee ak yow wala mu la jox nangam wala mu jox nangam. day kontaan day kontaan. Mhm. Cheikh Seydou euh, Cheikh Oumar Foutiyou noonu Cheikh Seydou noonu noonu ba léeg-léeg njabootam wax waaye sëñ bi doo seetal li ngay def ñi def mel na dañu lay nax de mu ne man ku may nax ci ñii gañe nga ma may nax ci ñii nit di lakku ci ñeent ñi man ma ñëw di ko lakki bu ngeen déggee wolof boobu nit du lakku ci ñeent ñi ma ñëw di ko lakki alxaaji Mouhamed Moussa dafa nekk royukaay bi nga xam ne bu gën a kawe ci royukaay ya royukaay bu ci gën a rafet mooy royukaay cofeel moom nag cofeel bi la jiital ci lépp moo tax mu nekk royukaay bi nga xam ne bu gën a nekk bu gën a nekk bu gën a rafet bu ci réew mi te ñëpp war nañ ko roy mu ne Cheikh euh, Alhaji Mouhamadou Moussa radiallahu taala anhu nit bi nga xam ne baax ku aji sori la ci bépp melo wàññeeku aji sori la ci bépp melo wàññeeku ku aji mot la ci bépp mol melo bu mot mu ne moom alaaji Mouhamed Moussa radiallahu taala anhu nekk na nit bi nga xam ne ñeenti mbir mooy mbiram amul juróomeel foo ko fekk mu ngi ci jaamu yàlla bi mooy kaamilu alquran bi ak sunna bi ak xamle nit ñi ak jubal nit ñi loolu benn la ñaareel bi foo ko fekk mu ngi ci feeru tool ya tool ya tamit na ngeen béy na ngeen liggéey ngir ngeen gore ku amul lu mu jàpp du am fu mu gore kon nag na ngeen liggéey na ngeen béy na ngeen jàpp ci seeni ngor bu dëgër seeni diine gi bu mu leen di jàngal munul mot mukk lu dul seeni ngor gi mot moo tax toujours diine ji diine ji yóbbaale na alquraan bi yóbbaale na defar bi yóbbaale na lépp ak tool yi liggéey bi loolu moo doon liggéey mi mi ngi ci euh, euh, eh eh, benn bi foo ko fekk lu dul ñaar yi mu ngi ci safinatu saada safinatu saada téere bi nga xam ne Cheikh Umarul Fuuti def na ko ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam euh, defiñ bu doy waar. téere bu am xam-xam téere bi nga xam ne tàggal ak yonent bi ci façon bi nga xam ne depuis jamono jooju ba tey jii amul ku ko tàggee noonu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam maanaam ñu bari bu ñu xamee tey Safina Alhaji Mouhamed Moussa moo tax. ñan foo jàngate eh, damal ñan foo soo gasin wurutoo mu ne def ko doon def awqaaful Qur'an ni ko defee xam nga Seexna Tijaan yi. ak ñu baax ya dañu digal seeni taalibe bis bu ne nañuy jàng ñaari lu gën a néew ñaari xisib alquran moom tamit cofilam ci Cheikh Omar ak yonante bi safinatu saada bis bu ne day jàng buntu bu àggalee tamit delluwaat bis bu ne benn buntu du jag du caagin day jàng rek di dem waaye day jàng di sellal di setantal di xam xalaatu Cheikh Umar li mu wax ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ba muy àgg loolu ci ci la dunde ba mu faatu ci la rek la nekk mu ne ñu wax alxaaji Mouhamed Moussa dundam jaari jaaram mbaaxam yiwam te waxawale wuñu Thierno Hamidou ndax itamit Thierno Hamidou ci jëfam la bokk Cerno Hamidou ci may bi ko yàlla may la bokk kon nag munoo wax Cerno Alhaji Mor Moussa waxoo Cerno Hamidou ndax itamit daanaka boo seetee Cerno Hamidou mooy dalil mooy preuve bi ñu war a xam mot motuwaay Alhaji Mahmoud moo ñu koy may mais bokk na ci li gën rafet yàlla bi muy may doomi aadama bu mayoon alxaji Mamadou Moussa li mu ko may ba pare mayu ko Thierno Hamidou day mel na may bi dafa manqué waaye jamono bi mu ko mayaalee Thierno Hamidou mu remplacé ko mu fees place bi del tey tamit mu am lépp li mu amoon mu mel ni mu meloon tey tamit ba yàlla defal ko tawfiq gis nga yàlla bu mayee day may ñaar may naa la nit ki ba pare mayaale la beneen may bu nga xam ne bokkul ak li mu mayoon Alaaji Mat Moussa mu def ko may Thierno Hamidou fekk may bi mu may Thierno Hamidou ak may Alaaji Mat Moussa yëpp may Alaaji Mat Moussa la waaye nag fii la koy feeñale Thierno Hamidou bi nga xam ne bu melul woon ni mu mel ni ñuy xamee Alaaji Mat Moussa dina nekk lu doy waar mu ne tamit euh, moom Thierno bi yàlla dogale mission mot mu jógee fi moom ma Madane fekkee na ko dem na foofu moo ko jullee walla fekkee na ko euh, ak. Euh, al Ali Ndiaye Ali Ndiaye. bokk. taalibe am la. def nañ ci lu gën a rafet. te tamit ñu ngi xadara Cheikh Omar yëpp mu ngi sant Ali ci. li mu jël li mu tabaxee. dara taxawaayam ci kër gi. Mm, ma koy liggéeyam ci kër gi. xadra Cheikh Omar yëpp ñu koy sant ñu koy ñaanal yàlla ñu ngi koy gërëm ñu ngi koy ñaanal yàlla nag gën a yokk daa iman wa abadan ci barke bi am ci Alhaji Man Moussa yàlla na koy yàlla sotti ci moom ngir taxawaay bi mu ci taxaw. mu ne xadra Cheikh euh, Cheikhul Khadim Ahmad Bamba radiyallahu taala anhu moo xadra googee tamit mu ngi sant Ali Ndiaye lu tax. nit kii bu amee taalibe bi yàlla mun a may am xel kii bi mun na ràññatle beneen may yàlla fu munta am te tënku ko fii rek la may yàlla amee te kii yàlla may na ko may yàlla am na fu mu ne fu ne te mu reconnaître mu jëf ca xadra Cheikh dina ko sant ci loolu dina ko gërëm ci loolu te dañuy seedula yàlla lii lu rafet la mu ne cofeel alaaji Hamidou Cerno Hamid mbaaxam ak nittee am ak motam moom mii Cerno Madani mu ngi silsil alhaji Mat Moussa la yore foofu la jëlee tariqa bi Cerno Hamid mag la ci moom lool kon nag Cerno Hamid dina daal di nekk sëriñam en tant baayam moo ko jox kon de day nekk sëriñam moom Cerno Hamid day nekk sëriñ Cerno Madani te nekk na ko mu ne waaye terewul bi nga xam ne Thierno Mountaga jóge na fi day dafa ñëw ci Thierno Madani mu ne ko baayaatuka baayaatuka mooy li ngeen di tuddee jaayante nag yàlla ci yow yow mii nga xam ne mooy Thierno Madani jaayante ak yàlla yow maanaam daal teg naa la Serigne fi ma tegoon Thierno Mountakha fi ma tegoon Cheikh Omar fi ma tegoon Thierno Seydou Nourou teg naa la fa loolu boo ko gisee mbaax la ak suufel sa bopp yonent bi sallallahu alayhi wa nag ne dafa nee ne képp ku suufeel boppam te yàlla tax du caagin da ngaa wàññeeku yàlla tax yàlla yëkkati la moo loolu jikko jooju bokk na ci li yàlla may Cheikh Thierno Hamidou yëkkati ko ba kaw faw parce que dafa suufeel boppam moom te yàlla tamit mission am li muy njëriñ fii rek mooy ku suufeel boppam rek mu yëkkati la loolu rek mooy njëriñ yàlla. ci ñun mu feeñee rawda bo ɓe jii o ɓe jii rawda feeñi ne loolu feeñe ci armel ya ci rawda ba won abbani yo waɗane ko allah tan addi waxul nañ ko defal mais yàlla rek moo xiirtal ali mu defar ko ba mu mel ni mu mel mm-hmm. mu ne loolu nag lu ko may yooyu mooy suufel bi mu suufeel boppam ziyara mo janoɗen o ziyara mo janoɗen ɗo e mawlude ɗum ko ko imtidade min ziyarat cheikh oumarul fouti batteɗe e nder aduna he ziyara bi ñu demoon fee ci daara xalay be ginnaaw mawlud gi dafa nekk ziyara bi nga xam ne mu ngi suqeeku ci ziyara cheikh oumar ziyara cheikh oumar ci ziyara boobu ci la bokk ziyara yi ñuy def yëpp ci ziyara cheikh oumar yi la bokk mhm. yëpp ci la bokk boobee nag tamit bi ngeen demoon ci ziara Cheikh Omar yi la bokk jooni noon gadi ma goɗɗi kadi ndewene nde ɗo hitande léegi tamit yeneen ziara dina ci topp ci at bii di ñëw incha allah foof ko foof foof noon yë yëpp nag ko yo julɓe kawru ziara li ko taxaw li ko tax am na nit ñi daje te toppa bokk yàlla benn yoon ciftina geɗe ñu fàttali ko mbirum yàlla ciftide sunna annabi ñu fàttali ko sunna yonte bi sallallahu alayhi wa sallam tam foti ziara loolu rek mooy ziara o heddi ko lépp lu dul loolu du dara loolu rek mooy ziara alhamdulillahi famille ɓesgu alhaji umar moussa ñu ngi cant ñeel na yàlla zuriya ceerno mahamadou moussa mahamadou moussa e ɓesgu mum alhaji mahamadou moussa ak njabootam ay qouran o aaya alquraan bi dëggu na ci ñoom yaa ayuha alladina amanu taqullaha wa kunu ma assaadiqin yàlla wax na ci alquraan yéen ñi nga xam ne di ngeen gëm yàlla na ngeen saxoo sopp yàlla ak ragal yàlla te bu ngeen saxoo ci sax sopp yàlla ak ragal yàlla ngeen ànd ak way sopp yàlla ragal yàlla ya yu dëggu ya sa yiɗi ko gonɗinɗa ko liman ma reeno wasa bonde boo soppe sa yimɓe gonɗuɓe e boo soppe sa liman mu dëgër mu bañ a yàqu nanga nga tànn ñu seeni i iman mel noonu nga ànd ak ñooñu ɗum waɗi alaji man moussa ƴeewi aduna ha ƴeewi ha ƴeewi e yii cheikh oumar oɗo ko neɗɗo allah ko jettiɗo allah jagge cheikh oumar kañumne moo tax alhaji mamadou moussa bi mu seetee jeexatal ba mu jeex mu jis këru cheikh oumar jëmmu cheikh oumar ak waa këru cheikh oumar mu xam ne fii ñii ñu dëggu lañu mo ànd ak ñoom ci seen i iman ci seen i ngëm waɗi sa ƴeewi ɓesgu makko ha joni ha joni ɓurɗo hen famɗude sa haalde muɗum wiyata so kala teddugal ngal allah rokkata min hmm. min ñaagui ko yo rew e juuɗe cheikh oumar mu ne loolu ngëm googu sax na ba ci doom yi léegi ba tey njabooti alhaji mam moussa kenn ku ci ne mu ne bépp yiw bu jar la dul ñu ngi ñaan yàlla bépp yiw bépp mbaax na ko yàlla jaaralee ci waa kër Cheikh Omar mu jot ci ñu jot ca loolu la ñuy ñaan yàlla ɗo eh, eh, tan kawis kawis tan feeñi ɗo e koɓe ngari ɗo e galle ko kamɓe télévision o ko ari ɗo joni wone benn kiiman rek feeñ na fii ci Alaaji Mamadou Moussa Cheikh Omar bi ngeen ñëwee ci kër gi am na kiimaan rek bu xew fii diggante Alaaji Mamadou Moussa ak Cheikh Omar Fouti mine gila Alaaji Mamadou Moussa jibina ha jooni ene wonde Cheikh Omar gila ha jooni waxoon nañu sànq ne Alaaji Mamadou Moussa bi mu juddo ba fi ñu nekk nii mu ngi ànd ak Cheikh Omar ngari ɗo bi mbi yomi haala télévision mbimi mu ñëw ngeen fii ngeen ne wax ci télévision bi mu ne man de génn lu ma ma wax ci télévision bi eh, ɓe ñaagui kam mi wawa salade nguen ñaan ko te munul bañ te mbimi mi wawa wolof te mune moom munul wolof a lu ɓe gondumi ɓe woni hen wawaɓe sélève kono noon wolof celluɗo donkumi mu seet ci ñi mu àndal parce que am na ci am na ci ñu dëgg wolof waaye wolof bi mu soxla mu munu ko am munu ko am amul benn jotaay bu ñu toog ngir alhaji Moussa Cheikh Oumar bañ ci ñëw kii rek da ci feeñ ceerno Moussa ari o addani oɗo foti Cheikh Oumar foti mu ne Cheikh Moussa Thierno Moussa ñëw indaale photo Cheikh Omar Fouti bii kon nag loolu kiimtaan la. Alaaji Moussa toujours di wonde Cheikh Omar. loolu. toujours dalil la Alaaji Mahmoud Moussa toujours mu ngi ànd ak Cheikh Omar Fouti radiyallahu anhu. barke Cheikh Omar yàlla may barke Cheikh Omar. noonu Alaaji Moussa du wërtu loolu mooy ñaanu Alaaji Moussa. yàlla loo koy barke Cheikh Omar. alhamdulilah salaamaaleykum. <laughs> waaw Thierno may laaj. Hmm. mooy euh, lan moo sabab ak sa jëm asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu eh, gannaaw bu ñu sant yàlla julli si yonante bi eh, ñu nuyu waa Sénégal yëpp ñu nuyu waa islaam yëpp eh, alhamdulilahi rabbil alamina wolof bi leerul waaye nag danaa ci def pek aywa daara eh, yàgg na tuuti dafa commencé bu ñu tudda daara Oyndu daara Oyndu moo jëkkoon nekk daara alay bi mu jógee foofu nag ñëwaat ci daara bu nekk léegi daara bu nekk léegi nag mooy daara xalay bu alaj Maodo Moussa dëkk léegi avant mu dëkk loolu foofu nag am na fu mu nekkoon waaw léegi nag ala ñu woon Moussa kooku dëkk bi commencé na yàgg am na ñett téeméeri at daara ala bi amoon na nag eh, yi bare ci eh, foofu comme jéeri jóg yooyu ay dëkk yu bare benn dëkk la daara ak jéeri benn la daara ak yeneen yi benn la am na ay sax dëkk yu nekk Mauritanie yëpp ci daara xalay la bokk mooy suska rewo ak wargo kooku mooy suska rewo ak wargo léegi nag ki nekk foofu xalifa alhaji mamadou ki nekk foofu mooy fondation bi moo jóge woon foofu papam moo demoon ànd ak Cheikh Oumar papam Alpha Moussa Alpha Moussa lii la tudd kooku moo jur alhaji mamadou moussa ci jihaadi Cheikh Oumar moom nag ci Nioro de Sahel alhaji mamadou moussa la juddoo ànd ak papam foofu mu nekk foofu be juul bi ñaw mooy ahmad cheikh moral fouti commencé euh, euh, bugg demaat mu ne ku bugg des foofu des foofu ku bugg a delluwaat dëkkam mu delluwaat foofu loolu moo tax Alhaji Mamadou Moussa ak yaayam ak papam ñu ànd ak ki tudd Bocar Bayte ñu ànd ñëwaat ci Sénégal après nag moom ak papam ñu ñaw ci région de Matam dëkk bu tudd Ndulumaaji papam gaañu foofu des foofu mu ànd ak ak rekk papam mu ñëwaat daara alay moom ak yaayam mu dugg alxuraan ci daara alay ko ci alpha euh, foofu la jóg alxuraan mu jàng foofu euh, dem na ci sëriñ yi bare mënul xeej fii ba mu am ijaazam alxuraan mu ñëwaat ci Ahmad Muxtaar Saaxu bogge moom moo jàngal Ceerno Seydou Nour mu nekk moom bu ma paree ñëwaat foofu ci daara alay bi toog di jàngale ak 1921 1922 mu dem nag mu na defa bugg a dem penku mu dem penku ah, dem foofu fekk foofu eh, ku tudd Alpha Hachimiw kooku doomu Cheikh Umar la Cheikh moo ko yar borom xam-xam la foofu la toogoon mu am foofu kiimaan bu mag ci foofu nag mu ànd ak moom mu ne man de dama bëgg a nekk ak yow gannaaw yow surtout Cheikh Umar la man depuis man Cheikh Umar moo nekk suma sëriñ léegi nag gannaaw suma sëriñ gaañu na dama bëgg a ànd ak yow mu ne ah bismillah danaa tàggu mu dem ci yonante bi ci ci ci xabri bi mu léegi de man duma la jàpp fi lu waroon am yëpp am nga lu nit waroon am yëpp mu ngi ci yow waaye nag danaa la jox rek barkeel après nag Alpha Hachimi moom tam mu ne gannaaw yow taalibe rek nga bëgg nga mën a nekk ah danaa la jox ijaaz boo xam ne ma taggu yonante bi ma jox la ijaaz mooy euh, diplôme boo xam ne euh, dariqa Cheikh na Ahmad Tijaan mu jox ko moom tam ma bindal ko ngi fii ci suma carnet yi wolof bii nag leerul ah ñun eh, dañu ko eh, juddoo rek dem Fuuta waaye nag bokk nañu ci wolof yi sunu maam wolof lañu <laughs> jërë ngeen jëf tabarakallah macha allah waaw. waaw Ali. Hmm. léegi lay laaj. moo di eh, demoon daara xale yi góor bu baax bu ñuy wax Thierno Hamidou Ly di sa wëllëre bu yàgg a yàgg eh, bokkam yeeg xalif beeg ñëpp buñ fa àndee ñu gis ni dëgg-dëgg bu fekkee da daan wër di wax ni góor gi bëgg naa ko fonk naa ko doy na ma Sénégal gépp gis nañ preuve parce que raw boobu nga fa defal ak coono ya sax parce que Ousmane ni may nettali ci yoon xeer yi boo ko daan yóbbu liñ ciy daj liñ fa demee xalif bi nga xam ni mooy xalif Seydou Madani Thierno Madani mm-hmm. li mu wax foofu mm-hmm. ñun mënuñu ko wax parce que moom baatam moo gën suñu bos moo ko gën a sori moo gën a dëgër mm-hmm. gërëm ba sant ba mu jaar kenn ku nekk euh, yéene woon na ko defare mu defaree ko mais xëy na da koo maa ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp di gërëm El Hadj si émission bi nga ñëw sama bureau pour ñu waxtaane ko posé nga ma question boo xam ne bii franchement bëggoon naa see répondre mooy di laaj sama digganteeg Thierno Hamidou Ly góor googu lu nit di seet si lu baax si doomu aadama mu ngi si moom moom day koo xam ne presque vingt ans laa ko pratiqué donc lu bari xam naa ko si moom mais li ma gis si góor googu mën naa euh, kër bu ne dugg naa fa nit ku nekk toog naa moom mais li ma gis si moom mun naa ne gisuma ko si benn doomu ngor gi si moom mbaax gi si moom eh, boroom xam-xam gi si moom lu jafe la dama gis aussi senegal dafa am lu fi am te nit ñi duñ ko wax dafa am ay kilifa yu fi nekk dëkk si dëkk Sénégal def fi lu ne te ñu si gën a bari boo ko xoolee bitim réew lañ leen gën a xamee si réew mi ñu dëkk léeg damay dox jaar Fuuta romb xabul kër Cheikh Omar Foutiyou ma xool ba mu yàgg sama yaram day xaw a daw dam naa xool kii koo xam ne kii dem na ba jël jaasi di xeex pour diine samp si Sénégal si àddina te Sénégal yi sax xamuñu ko doy waar la te boo seetee kër gune ne Cheikh Omar Foutiou ma nga fa këru diine gu nekk Sénégal tey boo xoolee gis fa Cheikh Omar Foutiou suma góor gi nag ba ma ko daan xool noonu rek laa ko daan xoolee dama koy xool ba mu yàgg ma xam ne nitu yàlla a ngi nii nit ku baax nit ku jullite loolu sama diggante moom nag su ngeen ma ko laajee am na si lu ma mën a wax mais am na si lu bari loo xam ne vraiment mënuma ko wax li ma leer ba leer ma daal ba sama yaay jëlee sama loxo teg ma si loxoom ba léegi na ko dénk naa la sama lii sama doom ji taxaw bu ma taxaw xam naa ko fa ma jaaram moom xam naa ko li ma ko defal nii nag du lu ñuy puukare lu mérité la xam nga nit da nga ko defal loo xam ne da ko mérité bu doon suma sago sax loolu duñ si wax parce que lépp lu ma defal góor góob xeeb naa ko parce que moom moom xam naa ne eh, defal na ma lu ëpp loolu te waxuma ko te mosu koo wax sama diggante moom demoon na ba jaaxal na ay doomu aadama parce que dañ naan Aly Ndiaye mii lan la ba Thierno Amidou sol dàllam ñëw na sama kër lu mat ñett wala ñeent yoon te yaakaar naa ne loolu ñi mu ko defal bu ne am na waane bariwul seet naa ba seet xam na góor gi garab gu muy naan sax su ma ko jëndul du ko naan man maa koy jëndal garab mu di ko naan keneen ku ko laajoon mën a la déedéet joxal Ali daana dem hôpital it bu ñu dee ba si yoon danaa noddee Ali ñu woo ma ma ñëw donc fi ma jaara mu bari na lépp nag nit du ko wax mais nag émission bii nga def man soo gisee sax tey man mosuma wax télé ma siy wax bëgg nit ñi roy si nit ñu baax ñi parce que Sénégal dafa bari nit ñu baax ñoo xam ne bu buñ si doon roy mën na am euh, lu bari dina soppeeku parce que boo xoolee xale yi nekk fii xamuñu amuñu euh, amuñu ay vertu da leen a manqué te mag ñu njëkk ñu fa nekkoon koo si xool rek am na loo xam ne lii bu si nit ñi tegu woon rek Sénégal dina jëm këram nit ñu bari dinañ changé waaye nag jikko ju baax ji doon tegee yonent bi mën naa laa waatal ni jikko yooyu de gis naa ko sama góor gi ma daan dégg nag parce que damay dégg rek ñu ne yonent bi amoon na jikko bi amoon na jikko bi amul benn jikko boo xam ne bi nag dégg naa ko te gisuma ko si Thierno Hamidou Ly mii loolu tax ma ne la góor gi ku mel ni moom jafe naa loolu daal daa bëggoon lu ma si wax jërë ngeen jëf waaw mbokk yi gis ngeen nag euh, seen première partie parce que dinañ dellu si ci beneen numéro indil leen li des ci waxtaan bi nga xam ni moom lañ fa jëlee Eh, ci réew mu màgg moomu di Fuuta eh, tey nag ci club xam sa bopp ñu ciy sant bu baax a baax a baax Ali Xujja Njaay buur ba Jolof nga xam ni moom moo sabab mu ànd ak moom eh, dem Fuuta ci góor gu baax gi nga xam ni moo doon xaritam di wëllëreem di Ceerno Hamidou li ñuy ñaan yàlla nu yàlla tas ci barkeem bi jaayi seydil wujjoot sallallahu alayhi wa te yàlla xareel ko aljana ya gën a kawe di gërëm aussi xalifu Thierno Muntaga Daha Tall di Thierno Madani Tall eh, ci woyof gi ci mbaax gi ci bëgg gi mu bëgg réew mi eh, ñu koy ñaanal yal na yàlla yàggal ko fi ki leen doon présente émission bi nag di seen xarit El Hadji Tall Ngol ñu di leen jox daje ci semaine bii di ñëw ci beneen numéro ci Fouta incha allahu jërë ngeen jëf